ni ma la ko waxee ñooñu ma la wax ñëpp maanaam amuñu xam-xam ci yor am ministère di ko doxal léegi lan ngay gis foofu mooy kon ñun dañoo am problème ak xam hmm. waaw lan mooy xam parce que maa ngi lay wax classe politique bi yëpp maa wax amul bac amul bac. xam dinañ ma ree mais Google dinañu. mën naa mën naa bañ a gis nga ministre gis nga bépp bépp homme politique boo dugg ci euh, Google Google. Hmm. waxu lu mu am rek xamal na jàngut. ñi jàng ñëpp demal xool ñi jàng rek nga bind. dañ la koy jox te li ma lay wax man jëleewuma ko Google ndax man du ma lire français waaye xam naa ne moo fay nekk ñii ma la wax ñëpp jànguñu jànguñu jànguñu tubaab jàng nañ tubaab mi amuñu niveau suñ classe politique gu Sénégal nag boo bëggee dégg-dégg actuellement nii fii fii bi fi Ousmane ko ñëwee ak ñoom Boubacar Camara ay ñoom Abdourahmane Diouf ñoo ko innové def ko muy muy muy muy muy muy muy muy ëttu xam-xam soo bëggee dégg-dëgg moo tax Sénégal. parce que dafa impossible woon mu dox. Cheikh Bara waaw ah. nga baal ma nag dogguma la après ma lay bàyyi nga continuer sa raisonnement mais mais li nga wax nii baa du nekk kon suñ ko jëmmalee baa du exclure ku mel ni yow ku mel ni man ku mel ni keneen ak keneen nitu daara yi sax surtout ndaxte mën nañoo jël ministre def ko koo xam te ne nii xëy na njàngam ci tubaab soriwul amul bac <coughs> mais xam-xamam xëy na day jéggi dayo macha allah. waa xam nga ëttu bii ñu am. actuellement dafa bari ñu am xam-xam. wax naa la Abdourahmane Diouf wax naa la da ministre Bamba Kane wax naa la Boubacar Camara mm-hmm. boo bëggee dégg-dëgg tamit parti Pastef moom mooy parti xam-xam. Mm. waaw dafa nekk ci ay cadre boo xoolee niñ formé seen gouvernement bi sax ngay xam ne lii parti cadre la. d'accord dégg maanaam xam-xam moom fa la nekk rawatina coalition Diomaye ñëwaat ñi am xam-xam ñëpp ñemee dugg. d'accord donc loolu dama la koy dama la koy wax dama la koy décortiquer gis nga tey ku mel ne Idrissa Seck mhm. wax mën naa bari mais nit lu topp ci bagam doo ko gis hmm. waaw Khalifa Sall bu amee bag dina ma jaaxal bu ko amee tamit lu ko topp doo ko gis su ko amee nag jaaxal na ma parce que ñu bari nee nañ amu ko ku mel ne Bougane tamit ñu bari nee nañ amul bag Pape Djibril Fall bag plus 2 la am na bag rek plus 2 mais lan la man ban métier nga man ah journaliste la waaw mais métier xam man a teg doxal kooku bac plus de tanewu la yow tanewu ma man dàq maa liir dàq maa bind tubaab mais dàqoo ma ëppoo amoo métier aw ma métier ci luy defal doxal réew quoi nañ waxante dëgg mm-hmm. maanaam classe politique boobu la ñu am Barthélémy amul bac amul <laughs> daal bac nga indi waaw par exemple no xam nga bac mooy ma maanaam mooy mooy xam nga boo defee bac après ngay dem euh, nekk étudiant mooy ngay doog a étude étudier xam nga la ñuy wax étude nga doog a uh-huh. dugg ci étude maanaam jéem a xam loo mën a xam ak loo mën a def uh-huh. mais ki am bac wala ki amul bac kooku xamagul maanaam moo ko amul moo ko duggul école ñoo yam soo ci uh-huh. dindee liir ak bind mook uh-huh. mook analphabète bi ñoo yam dëgg la loolu moo fees dell suñ classe politique bi yow du la jaaxal euh, mas ngaa jàng maanaam par exemple tey yow mas ngaa toog ba gàgganti ko wala nga am benn affaire bu la lëntoon nga seetaan Moustapha Niass mu xamal la ko xam naa fi ngay nga koo gis du wax xam-xam du ko bind du ko wax d'accord mas ngaa gàggante ko ci ci ci ci ci yàlla na ko yàlla yërëm dem si yàlla uh-huh. doo dégg sénégalais bu wax ba ne na Ousmane Tanor Dieng waxoon wala na mu ko waxee woon wala la mu bindoon nii la jaar xam-xam jaar nii amadu Ba mii mas ngaa gàggante ko ci moom malgré que def na mitin yi wër réew mi fépp mais max ma benn moowu xam-xam boo mas a jëlee ci amadu Ba nag gars yi am nañ xam mais wa xam-xam xam nga xam-xam xam nga nan la mel xam-xam ak xam nga mooy lan. mooy lan mooy nit ak jëmmam. mi ngi mel ni jibi turu jibi ak jëmmi jibi kenn mënu leen a teqale. Mhm. gis nga xam-xam. Mhm. boo ko amee booy wax rek di jàngale. ñu bari nag dañuy wax naan diw Ousmane Tanor Dieng wala Amadou Ba wala diw dafa mënta wax pourtant Souleymane Basir Diaw Diagne. Mhm. Souleymane Basir Diagne men philosophe. mënta wax. mais est-ce que nit dina dina taxaw ñemee taxaw ni pose question ne Souleymane Bassir Diagne jàng na wala jàngul nit ñeme na ko ah, kenn ñemewu ko posé mhm. Iba Der Thiam pourtant njàngam demeewul noonu mais niveau am ci xam-xam buy wax ak yow mënoo mënoo werante ne kii di wax ak yow borom xam-xam la mais la moo tax Amadou Ba buy wax ak yow man dama ko seetaan 2STV ci benn jour tijjiwaat sama téléphone seetaan ko may mën a nduur fay ba mu jeex mhm. man mën na maa teg sama loxo ci kaamil ni kii doon wax ak man moom du ko am xam mais maa ngi gis mu yor yi lijaasa ñu ne enam la génne inspecteur impôt nangam nangam. mais ndax am na waa léegi doo xam lijaasa yi lijaasa yi nga dul xam noo koy def. mais foofu dama lay wax benn problème. boo xam ne mag ñi may seetaan duñ ko weddi. mooy il faut ñu distinguer enaam avant 2000 ak enam après 2000. Hmm, waaw enam bii ñoom Ousmane ko jaar dégg nga. Hmm. ak enam bu njëkk ba bokkul. Hmm. déedéet lu ko wutale ah waxuma nag ki nga xam ne dafa jaar ENAM dem nekk magistrat par exemple tey ku mel ne procureur Ousmane Diagne hmm. ENAM la génn depuis quatre-vingt-neuf waxuma koo xam ne da nga jànge ENAM iti jàng bu jógee ca tool ya wala nga jóge fa nga jóge def say itit ba am not yu la mën a dugal concours ENAM nga dem def ko at ma dem nga xam ne defoo nen ak politique mais man maa la wax fii tey te kenn du ko dindi lan képp koo dégg mu daan politigal PS. Mhm. te jaar ENAM diplôme am du dara moo kayitu journal yi ñoo yem. Ah. te kooku noonu doo gis mukk ci àdduna ñu ne bind na téere wala ma nga ca plateau ba ma ngay wax xam-xam wala invité nañ ko ci université ma ngay def ay exposé wala tey maanaam euh, mu ngi def conférence ci dara. Hmm. doo ko mës a gis ñoom ñëpp sax dañoo ragal débat duñ dem télé wala bu ñu def duñ def débat contradictoire parce que ñoom xam nañ ne toog nañ ci ay diplôme mais seen bopp. xam-xam nekku ci loolu mal maa la ko wax fii te comme neex demal xool man li may wax ay fee la comme neex na nga weddi ma waaye mm. mais mais mais ay fee la gis nga ENAM avant Ablaye Wade moo ko génnee présidence mm-hmm. école la boo xam ne bi tubaab yi dem dañoo jël Outremer euh, mooy mooy école Outremer bi nekk France ñu ñu ñu jël ko pour ja forme suñu suñu suñu suñu suñu kii pour ñu mën a garder archives yeeg këyit yeeg maanaam xam lan mooy administration mm-hmm. ñu jël école bi bàyyi ko président sans colin yor ko Sankolin bi mu ko yoree def ko nag école boo xam ne étudiants yi politigal PS la ko ndayale woon képp ku def résultat ci politique bi mu jaarale la ENA ENAM defal la concours nga am nga am nga am admis. d'accord léegi li may wax nii. ki may seetaan mën na ko jaaxal. Mm-hmm. léegi dama lay poser benn question ki may seetaan. Mm-hmm. nan nga mën a nangoo sa xel nangu na yow Moustapha Niass moo ji ko jiite étudiant PS. moo ko njëkk a jiite. fan la jaar ENAM bi mu jaaree ENAM lan la def am fan la nekkoon di liggéey biir présidence la nekk di liggéey bi Moustapha Niasse duggee ENAM kan moo ko remplacé woon ci ci ci étudiants yi Djibo Leyti Ka bi mu fa nekkee ba ba ba ba ba waa PS gërëm ko fan la dem ENAM lan la def am dugg euh, euh, ENAM bi mu paree fan la doon liggéey présidence voilà. bi mu paree xam nga kan moo ko remplacé. Saliou Ramaka bu PS. Mhm. moo remplacé Djibo Ka ci boppu étudiant wu PS yi. Mhm. ba mu defee ba waa PS gërëm ko lu mu defati ENAM dugg ENAM atme fu mu doon liggéeyee présidence. Mhm. ba Saliou Ramaka pare xam nga kan moo ko remplacé El Bekay Seck. dégg nga ma gaañu woon ca ca ca ca 2011 ca accident ba. Ah, ah, ah, kii ba kii ba nu mu tuddati avion ba daanu woon ci xawma Comore la dëkk yo dëkk Afrique yi <coughs> El Bekkay Seck moomu moo remplacé waat Djiboka moo remplacé Rama Saliou Ka Saliou Ramaka ci tetu étudiant PS fu jaar ENAM bi mu amee muy premier koo xam ne daa génn ENAM nekk préfet Dakar mhm. préfet Dakar da nga daan nekk préfet Koungheul préfet Matam préfet Tamba bay bëgg a dee loo nga ñëw ci ville bi c'est la première fois après jaar présidence maanaam ñu defal koy privilège mhm. léegi nag lii moo lay wan tey doo ma génneel opposant bu dul Habib si mhm. koo xam ne da doon opposé wu nekk ci parti gos dégg nga mhm. wala PDS nga dem di politique waxuma nag ngay jàng ni sam jàng ko mais di politique ñi xam la ci étudiants yi politique ba noppee nga def concours ENAM amul mel noom Habib Sy moo ci jaar réussir ko moo tax ba léegi moom sax da koy ndamoo toujours mhm. mooy premier étudiant opposant buñ mas bàyyi mu dugg ENA dem concours réussir ko parce que ñu ko mu parce que méritam la mais à part ça képp koo dégg mu jaar ENA étudiant PS la. d'accord Amadou Ba yaayam militant PS la woon moom étudiant PS la woon. sag bu dee enaam la jaar bàyyu Barthélémy Dias mi bokkul woon ci ñoom waaye dañ la daal moo leen fa nekkaloon maanaam ñaari tànk la taxay woon enaam la jaar Ablaye Makhtar Diop enam Djibo Ka enam Moustapha Niass enam Tanor Dieng enam dégg nga euh, Madiang Khary Dieng enam maanaam demal jël jeunesse socialiste bi yëpp enam lañ jaar mais booba enam école la boo xam ne maa ngi la koy rappelé waat encore une fois présidence la nekkoon Mm, d'accord léegi nag Ablaye Wade moo ñëw daan na école lu nekk présidence. Mm. daat koy génneewaat dugal ko ci administration bi en defe naa après 2003 ci la ci ñoom Sonko jaar. léegi nag defal différence nga xool ku mel ne joomaay ku mel ne ñoom Ousmane Sonko ku mel ne ñoom euh, nu mu tuddati ñoom Mame Boye Diao ñoom ab Ablaye ñaan catégorie googu nga xam ni ne 2000 génération bu mujj bi ci biir nguuru lay Wade lañ jaar ENAM. xoolal ñoom ba xam di nga ci gis kenn ngay nattable ba xam kii am na xam-xam wala amul xam-xam léegi lii nag lan la lay wan mooy classe politique bi ci boppam dañoo jàngut léegi lii lan lañ ko nëbbee mooy ENAM dafa am ñu fa daan jaar ñu jàng mooy magistrat yi ak administrateur civil yi nga xam ne ñoom seen yoon nekk ci politique mais ñooñu boo déggee homme politique yi fonk droit de réserve nga xam ne boo dee yéen a bokk fu ngeen jàngandoo bokk fu ngeen jaar droit de réserve moom day mel ne moom mooy premier médicament bi ngay war a njëkk naan moom bala ngaa def dara droit de réserve droit de réserve parce que yu mel nii lañ bañ nga révélé ko ba pare aayale nga politique aayale nga wax aayale conférence de presse aayale lépp ne la droit de réserve mhm. léegi homme politique yi nga xam ne ñoo doon njuuj njaaj maanaam di falsifier ay kayit presque mën ngaa wax loolu waaw ndax ñi ngi doon def concours boo xam ne dañ leen a programmé jox leen quota est-ce que xam nga ne jamonoy PS gendarmerie sax dafa amoon quota am na ñoo xam ne fii gendarmerie boo leen xasee na leen diplômé koso nga dañuy mer parce que suñ koso astuloo lañ daan jox quota. Hmm, d'accord parce que am na ci ñoo xam ni. lépp buñ la wanee seen PS boo bëggee dégg-dëgg duñu ay patriote te sérieux wuñ amuñu ñu dangay waaru daal. d'accord dégg nga léegi nag. léegi ñu delluwaat ci waaw. léegi ñoom ñi nga xam ne maanaam ñoom ñooy ñoom lañu defal yëf yi ñu bénéficié wu ci ci ci ci yëf yi. Hmm. xam nga ñuy wax ñoom. lan la ñuy wax homme koo wax na homme d'état la du wax homme d'état la du wax parce que looy wax léegi ki xam ki jàng am mérite xam da nga naan ko doo fi politique parce que bu politique sa ñàkk mérite feeñ mhm. sa ñàkk xam-xam feeñ mhm. da la doo fi politique mhm. ki ki ki amut xam-xam nekk ci kaw di yor yëfi ñu ne homme d'état ñu ne homme d'état voilà ak secret d'état moo yor secret bëgg ñoo rey ak homme d'état ak secret d'état lii dong la léegi nag seetal bi nga xamee ne dem nañ ba mu yàgg nag ku mel ne Ousmane Sonko nekkoon ci biir administration ñu tënkoon ko ci ay ay ay ay droit de réserve ak yooyu mu mu xëtt ko. mu fippu daal mu xëtt ko ñu dàq ko mu génn taxaw ne Ousmane sonk saa ni wuti xeer xasut kenn defut kenn dara xam nga lan la doon def. lan la def yor discours donc su waxee rek nit ñi di ko topp la moo tax Amadou Ba du wax nit ñi topp ko lan moo tax Djibo Ka waxut nit ñi topp moo tax. bàyyi Barthélémy Dias mi du wax nit ñi topp ko Sampol euh, Dias. c'est parce que quel discours. est que di nga gis maanaam tey par exemple Moustapha Niass def benn discours rek maanaam convaincre ci ay sénégalais dañ jënd ceeb jënd diwlin séddale jënd ciment dige jàkka ji ba pare wuti ba takk ko pour nit ñi ñëw. pour yow lan la. ñàkk jàng. Sénégal fii boo daan xool jamonoy wàdd ah Serigne Moustapha ñoom ñoo daan ñëw Ablaye wàdd moom kàngam la waxuma ko. Hmm. del xool Sénégal képp kuñ ne la dafa jàng. maanaam classe politique bi ñu nekkoon gauche ñoom Ablaye Bathily dëgg ñooñu ay ñoom Iba Der Thiam ay crack lañ parce que seen njàng yombutoon. seen njàng yombutoon mais ñi nga xam ne. ci amicale yi lañ nekkoon classe El Hadj Diouf geeg ay Sine Neenaak ay ñoom Moudou Diagne Fada xool leen mën nañoo yor diplôme mais duñ yor xam-xam. Mhm. lii mooy dëgg. tey nag maa ngi waxtaanee réew mi. tey kay yaa ngi waxtaanee dëgg dëgg dëgg la demee nag. te ñi ñi lay ñi sax yaakaar naa ne dégg nañ fi ngay waxee ah. waaw ah pour comprendre bu léegi da ñëwaat ci ci gouvernement bi man man parce que mélange bi ñu bëri am na noo xamante ne nii noonu lañ ko bëgg a comprendre. léegi du la jaaxale yow. waaw maanaam Senghor ak Ablaye Wade ci homme politique parce que ñooy berceau bi Senghor mooy tetu socialiste yëpp Ablaye Wade daanaka mooy teetu libéraux yi ci des yëpp jaaxalu la Ablaye Wade bind na Senghor bind na ci littérature lu xaw a bari. mais lan moo tax benn homme politique gu Sénégal mosul bind benn benn dara Abdou Diouf mémoire la bind mémoire du xam-xam hmm? Djiboka ci boppam la bind parce que genre mémoire la mooy doomu baykat doomu sàmmkat bu xaw ma mujj xaw ma lan loolu la bind hmm. bu amaatee keneen ku ci bind mooy <laughs> eh, nu mu tuddati Aliou Sow bi mu fasee jabar ji mer daal di bind ci jabar ji <laughs> <laughs> doo ma benn homme politique bu ñëw indi livre tekki taabal. te Ousmane Sonko bi mu ñëwee barki démb la dugg ci politique bind na ci pétrole bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy bind nangu étudiants yi di ko invité ci ay exposé muy dem di conférence lu tax gars yi ci des duñ ko def nangu débat contradictoire parce que xam na ne am na xam-xam. biñ ci jógee discours am lim ko mën a may mais Ousmane Sonko dem na ba deux mille dix neuf am sept cent mille voix. 700000 voix moom la Macky Sall am nekk président de la république. Mm-hmm. parce que taux participation bi moo bokkul. mais 700000 voix yooyu Ousmane Sonko am doo ma wax ne ma am na ci détenu politique. musta woote manifestation musta xeex ak kenn amul kenn problème problème xam la nekk nekk ci groupe whatsapp yi Ousmane Sonko bi muy doog ko tàmbali groupe whatsapp yi dañ ko ci daan invité mu ñëw. Mm-hmm. wax ay waxam dem. foo ko invité mu ñëw di wax parce que xam la yoroon di ko joxe. nit ñi di déglu mu leen di convaincre ñiy déglu mu leen di convaincre boo seetloo demal nga seet li ma lay wax Macky Sall ministère ministre bu mu mas fal maanaam maanaam gouvernement bu mu mas a fal ñi ci ëpp amut bag ñoo ëpp ñu am bag ñu amul niveau parce que boo xoolee kay Macky ci ñii rek la ko kaloon Aly Ngouille Ndiaye Awa Marie Coll lay Abdoulaye Daouda jàlloo Amadou Ba maanaam xeet yooyu rek la dajale woon nanguwu leen a bàyyi. kon su ma mooy niveau. maanaam benn niveau gi soog a am daal. benn catégorie nit rek la dajale woon. di leen fal ñi ci des ñëpp ay ay xoos maa ñàpp la ñu doon. d'accord léegi bi mu demee ba deux bu nekk na dem Google mu xool. Mhm. deux mille dix neuf Macky Sall bi mu ñëwee. ministre Sonko sonal ko ci ay discours mu xam ne moom ñii mu àndal amuñu niveau tontuwaa ji. d'accord mun munuñu ko indi problème mu gis ne nit ñi kat nekkate dañoo bëgg xam-xam waa ji mi ngi leen di convaincre ci xam-xam lu ñu def mooy daw léegi nag xoolal gouvernement bi mu teg gouvernement boobu boo ci dindee Cheikh Omar Anne dindi ci Néné Fatoumata Tall dindi ci Moustapha Diop bu Louga ñi ci des ñëpp ay cadre la gouvernement de cadre Macky Sall boobu la ko doog a sànni parce que booba gis na ne kon nit ñi nekkate problème mu xam lañ soxla kii mu ngi leen di wax xam-xam man awma ñu ma àndal ñu koo tontu donc mi ngi may bëgg a rey d'accord mu dem jël ay cadre teg mais cadre yooyu nag da ci am ñoo xam ne cadre lañ ci këyit mais duñ cadre ci bopp amadu Ba cadre la ci kayit mais du cadre ci bopp d'accord Moustapha Niass cadre la ci wu këyit mais du cadre ci bopp mhm. dégg kon dégg na ñii ma la wax nii doo ci man dama ne la ban sénégalais soo masaan gis homme poli ëttu politique bi ngànk Sidi Lamine ñas bañ koo wàccee sénégalais Sidi Lamine rek moo amoon niveau wu jàkkaarloog ñoom maanaam wax yëngal leen woo leen ne leen ñëw leen ñu ñëw nañ dem xeexi ju dem xeexi d'accord boo xoolee discours yi daaneel waat mag Abdou Diouf boo ci dindee